wa an yuhibba war na ci mukallaf muy sopp shaxsan jëmm lil illaahi ngir buur bi dil anaami kay borom mbindeef yi wa yubghida te mu koy bañ lexoo ngir yàlla laa lil xutaami du ngir pañatum àdduna wa ahbib na nga sopp al mu'mina aji gëm ja lil imaani ngir gëm ga wal tubghid da ngay bañ al kaafira aji weddi ja lil kufraani ngir weddi ga walaw ataa ak doonte dikke woon na nekk jëm ci yow naayet ci tooñ zaaka boobee jullit wata bi la yéefar moom dikke la bil maali ci alal dil kifaayati judi boroomuk doy daa jàll ci yi nga xam ne war na ci mukallaf mu ne mu koy jéem mooy fexe ba ku muy bëgg mu bëgg ko ngir yàlla ku muy bañ bañ ko ngir yàlla waaye du bëgg kenn ngir daray àdduna mu nekkoon kon képp gëm yàlla da nga ko bëgg ndax gëm gëm gëm yàlla bu la tooñoon tooñ gu rëy bu ñuy soow itam bu mu tax nga bañ ko ci sa xol na nga ko bëgg rek te yàlla tax sëñ bi nee ca woon ca tasawudu ku leen gis rek muy wax ci làmmiñam laa ilaha illallah dee leen ko moytoo noonu bu leen daal kenn kuy wax ci làmmiñam laa ilaha illallah kon ki gëm yàlla lu mu la def lu mu rëy rëy rëy ak lu mu tiis tiis tiis bu mu tax nga bañ ko na ko sopp rek ngir yàlla boo ko mënee jéggal ngir yàlla boole ca baax na soo ko mënta jéggal na nga dem ak moom ci yoon lislaam ñu àttee leen teg leen ci aw yoon waaye bul ko bañ mukk ngir tooñaange ga ki weddi yàlla nag moom na ko bañ rekk te yàlla tax bu la joxoon àll ju dul jeex mbaa mu teg la ci daraja ju kawe kawe bu mu tee rek na ko bañ te yàlla tax weddi gam weddi yàlla daal na tax moom nga bañ ko sëñ bi nee na woon bëgg gi may bëgg te yàlla rekk tax ak bañ gi may bañ te yàlla rekk tax ci laa amee lépp lu ma bëggoon ci saa boroom di ko ca taamu xubbiya lillahi wa bughdi fiihi lii aw salaa maa kuntu astafihi wa an yakuuna ak mu nekk amiran di aji digle bi rushdi ci ak jub wa naahiyan tey ci tere xam diddin walis ab safaan li nushatin ngir laabiire laakin na xoo moom nag la xoo ñeel na ko salaasatu shuróotin ñetti sart zakaraha yooyu tudd na leen fi sharx ca saraaba cheikhuna sunu sëriñ al muxiitu kay aji wër xam-xam xaneytu jublu naa fil jawaasi ca dagan ga wal wujjoo bi ak war ga fa xëkk jàppal xaddaxaa seenub lim xalaat tarti bi ci toftale ay li mu ci namm añ yekku na mooy mu nekk xaaliman di aji xam bil munkari ci lu bon la munkar daañ ko wax lu bon daañ ko wax lu ñu sib waaye al munkar mooy safaanub al maaroof al maaroof mooy lépp lu lislaam taamu al munkar nag mooy lépp lislaam bañ walay sa mufdiyan te déet muy aji àggale li charin jëm ci ay ak bari wu gën a rëy wa an yakuna ak bu nekkee dul amri boroom digal la xaadiran di aji àttan xalal isaalati ca dindiga di xëyri nukkurin ci lu dul weddi wa sharatoo sart nañu idna imaamin digalul ilimaan fii ci moom maxal adaalati ànd ak maandu ga bila taw wiisin ci lu dul lëntal waxee la waxees na it ne inna zeyni naka yi lee yaar lam yekk wa naa nekkuñu chartayni di ñaari sart am amri ca ndigal la daa bàyyil at taxmiina sikki sàkk ga waaye at taxmiin demaleeg fekkale lañ koy ëpp wax dafa jàll ci wartee fi mukallaf mu ne mukallaf mu ne war nay dégli lu baax di aaye lu bon ca nam ko ma ne waaye nag digle ko aaye dafa am ñetti sart yoo xam ne nee na sëriñ bu bari baa bari xam-xam wax na ko ca saraa ba taxul nag mu leeral turu sëriñ ba ak ban saraa mu ne nag ñetti sart yi dañ koy xaaj ñaari xaaj yoo xam ne yëmuwuñu da ngay berfee ñaar ña derfee benn ba daldi wax ne ñaar njëkk yi moom ku mu tasewul ci moom du saña digle du saña aaye ku ñaar njëkk yi tase ci moom nag mu boole ca bopp ñetteel ba digle ko aaye dal koy war du ko sañ a bañ ba ci jëkk mooy na xàmmee lu lislaam jàppe lu baax ak lu lislaam jàppe lu bon li fekk nga xam ne xàmmiwut la lislaam baaxal ak la lislaam bonal sañuta digle sañuta aaye ndax mën naa digle dara defe ne lu baax la fekk na safaan ba la mën naa aaye itam dara defe ne lu bon la fekk na lu baax la ñaareel ba mooy gannaaw ba mu xamee ne lu aay la lu bon la bu mu doon loo xam ne su ko aayee mu indi lu ko gën a bon mel ne buñ gisoon gone gu kàccoore kàccoore muy tooñ mag te buñ ko artoo ca la muy def mu far def lu ëpp loola jomam sax àgg na ci ba ñu ko rey te amuñ ci menn pexe dañuy bàyyi rekk xam ne ndegam yaara fa nekk lu bon ak la gën a bon nañ yem ci la bon te bañ jàll ci la gën a bon kon lépp lu bon loo xam ne suñ ko aayee mu indi lu ko yées rek ñu far bàyyi yem ci lu bon la bañ jàll ci la ko yées ñaari sart yooyu kon mooy tax kenn saña digle mbaa mu sañ a aaye sart ñetteel ba nag mooy mu am kàttan ak doole yi dindi loolee koo xam ne kilifa nga boo nee na deñ mu deñ doo sañ dëndiir lu dara loo xam ne lu yàlla aay la boo ko dëndiloo rek daal yenu bàkkaar bu rëy rëy am na ñu ne itam balaa kenn sañ a ko aaye da ciy am ndigalul ilimaan ja ba noppi itam mu maandu ba du aaye ba noppi di def la mu aaye am ñu ne déedéet jërta déglu ndigalul ilimaan jërta bàyyi ba doon ku maandu moom daal boo gisee loo xam ne mat naa aaye rek aaye ko ngir yàlla du jar nga di ca néggandiku ilimaan ja may la ca ndigal sag ñàkk mbaandu itam waaye xam nga ne yow kii boo ko aayee rek aaye ga mën naa am njariñ aayal rek li gën a baax nag mooy nga maanu maanu gu toll ne doo aaye dara ba noppi di ko def ndax loolaay tax ña ngay aaye di dégg la nga leen di aaye te buñ la gisee nga di ko def mbaa nga def lu ko yées moom boo leen aayee mën nañoo bañ a faale say wax bu dee nag koo xam ne yaa koy lif moom nga xam ne sëñ bañ moom gis gam lay gis dana tax faaw rek mu bàyyi la koy aaye ak lu mën di am daal moom ilimaan ñàkk laa may ndigal ca loola ak nga xam ci sa bopp ñàkk maandu bu mu la tee rek di diglee ko aaye foo yaakaaree ne digle ko ak aaye ga am na fa njariñ wajaa a dikk na aydan ba tey chartu kaw nil munkari sartub nekkuk lu bon la fii waahirin ci lu feeñ ci lu fés min duuni tàjji sii sin ci dul ak raju raju mooy gëstu secret duri goog xameef na ko wala stiraaqi sami du caagéenu sàcc déglu wastin shaaqi raihatin ak banantiku xet maanaam fontu xet ka fi li din nifaaqi niki jëfi boroomuk naafiq wala muy jus daganut baxsun gëstu xanit lësi walis dara loo xam ne iktatama nëbbu na fii sawbihi ci malaanam aw fii dukkaanihi wala ci butigam na waaw aw fii yadihi wala ci yaari loxoom aw bi daarihi wala ci këram maxan boole seen ba li fi nekk kullu képp ci lii kaana nekk na xaraaman di aji araam mu ni xajoj tereef na ko mu ne am na ñu ne bala ngaa sañ a kenn dara day fekk mu di ko fésal nga xam ne laq laqalu ko waaye nit moom lu muy nëbb rek kenn sañu koo gëstu di ko jéem a xam loolu nag mooy li wóor lu waay di def te di ko làq doo sañ gëstu bëgg koo xam ndax ne bu dee lu aay ma aaye ko ko mel ne bu dee wax ngay déglu ay waxam ba xam da ca foraatu lu bokk ci la nga foogam déet mbaa ñu ne day naan sàngara mbaa day tux yàmbaa yu mel noonu ngay fóontu xetam ba xam dana la xeeñ sàngara mbaa yàmbaag lu ko nuroog yooyu loolu lu araam la moo tax mu ne ci gàttal lu nit di làq daal moo xam da koo làq ci ay yéreem walla mu def ko ci biir butigam wala mu def ko ci këram mbaa mu ngëpp ko ci ay loxoom lu waay di làq rek kenn amu ca yoon jekk di ko gëstu bëgg koo xam lu araam la jullit bu ne daa war njort ci mbokkum jullitam rek bu gisee nag loo xam ne lu aay la te kenn nattabliwu ko nag mu door koo aaye waalam xamal bi ànnal amra ci naka digle wan nax ya ak tere jalaa feeñ na bay na maaj seen diggante talaa talaazumun ak taqonte te am malan na nga setantal fa mën naxaa ku tere xan ay shay'in walis lu mu ci dara xadd jaraa loolu daw na maanaam loolu xew na fa innahu naka moom xadd amada digle na bi ak si ca safaanam ba mu ne nag digleeg aaye dañuy yaar yu taqoo yoo xam ne mënuñoo tàggoo saa yoo teree rek digle nga boo diglee itam aaye nga ndax la ñuy digle faaw day nekk lu lislaam taamu la ñuy aaye day nekk lu lislaam taamuwut te yooyu yaar nag ñoo fi nekk boo ko digalee wax dëgg aaye nga ko fen boo ko aayee fen digal nga ko wax dëgg soo ko digalee maandu aaye nga ko tooñ boo ko aayee tooñ digal nga ko maandu soo ko digalee farlu ci sàmmonteeg waxtu yu julli julli bañ koo raw aaye nga ko sàggane julli ba waxtu wa raw ko boo ko aayee sàggane julli ba waxtu wa raw digal nga ko di julli ci waxtu wa bala moo raw moom daal noonu lañ taqoo mënuñoo tàggoo mukk-mukk bu lee amee rek lee am wa yaxarumu dana araam alkibru rëy alayhi ci mukallaf war riyaa ak ngistal wa kadibun ak fen namimatun ak rambaaj fal tadriyan na nga xam xaqiqatul kibri dëgg-dëggi rëy bi kasril kaafe ci kasara kaaf ga wa bi sukkoonil baa ak ci sukkoon baaba bila xilaafin ci lu amul benn wuute xul waxal ne rafu nafsin moo yëkkati boppam maa kat mil xaqi ànd ak nëbb dëgg maa taxa zumin ànd ak màgg-màggalu maanaam réeréelu waxam til xalqi ak xeeb mbindeef yi tey jàll nag wax yu bare bari yoo xam ne dafa araam ci mu mukallaf te mu mukallaf mu di jullit mu di ab taalibe war leen a moytu bu baax a baax mu jëkkee rëy ci wàññ bi teg ca ngistal teg ca fen teg ca rambaaj ñi yent ci wenn woy wi te leen teqale nag benn benn ku ci ne mu wax ko mu njëkki rëy ne rëy moom boo dee bind baat bi ci làmmiñu arab dañuy bindee kaaf baara moom xam nga ko waaye maska ya kaaf ga da koy maas maska ya ci suuf muy kii baa bi nga maas ko maas koog néeg muy abbu raa gi nag moom dafa saxul ci nenn dana taxaw ci béréb war a nekk ru taxaw ci béréb war a nekk ra taxaw ci benn béréb wala nekk ri waaye yaaree moom lañ wax mooy seen takk-takk mu ne dëgg-dëgg réy mooy fonk sa bopp xeeb fi yàlla yi dañuy wax ni sax dëgg-dëgg réy mooy mu jàpp ne am na daraja keneen am na daraja te moom nag mu ëpp kooka daraja nee nañu bu fekkoon ne yàlla kenn képp képp la sàkk rëy du mën a am ndax rëy balaa mën a am rek mu gis dara ci boppam ci luy nuru daraja ba noppi jàpp ne nag mu ëpple keneen daraja jooju loolu nag bu amee ba sax ci moom dana di indi ñu wax ko dëgg du ko nangu mbaa mu xam ne lii mooy dëgg mu réy du ko wax dana ko yóbbu ci rëy ak xeeb mbindee fi yàlla yi moo tax addis ba ne woon dëgg-dëgg yi rëy daal mooy rëylu dëgg maanaam ñàkk nangu dëgg ak xeeb mbindee fi nde fonk sa bopp ak bëgg lu set aku taar lu yàlla fonk la ndax yàlla day ko rafet bëgg lu rafet mel ne kon balaa nit a mucc ci réew dëgg-dëgg daal day bañ a jàpp ne gën na kenn mbaa lenn ci li yàlla sàkk su xasee jàpp ne gën na kenn ëpp na daraja kenn rek ci li yàlla sàkk rek am na dara ci réy xaqiqatu riyaa dëgg-dëgg ngistal la dal ak yaasi fa way ñaw ña iqaahu qurbatin mooy tàbbal ak jaamu yàlla li xastin naa ngir jublu nit ña wax wa moom nag ngistal la daa imaamina fasnu ilimaan alxasaali te moo di alxasaali iktaaru taaxaatin moo di baril ay xeeti topp yàlla maxal maali ànd ak ay kawe li koy yanaa la ngir mu am fii xulóobil xaw mi ci xoli nit ña man silatan wàccukaay xajibatan bu di aji fi raw mi ca sàkku ga mbaa ci càkkutéef la day xamle dëgg-dëgg ngistal mu ne ñi ko xam ne nañu mooy def xeetu jaamu yàlla goo xam ne yàllay kese-kese taxut nit ñee tax nit ki bëgg ñu tagg ko mbaa ragal ñu xas ko mbaa bëgg daraja mbaa bëgg alal yu mel noonu su ko taxee def ak jaamu yàlla rek loola ngistal la al imaamul Ghazali ne su jaam bi doon def ay benn benn muy sell ngir yàlla mu farlu ci baril nag ay xeet topp yàlla am ndax xol yi naw ko yéem ko ku ko gis rek naw ko yéem ko bu fekkee looloo tax muy baril topp yàlla lu baax loolu ak ñàkk sellal la ngistal la waaye ci gàttal mënees na ne dëgg-dëgg ngistal moom mooy def te yàlla kese kese taxut lépp loo xam ne yàllay kese kese moo tax ak sellal la loo xam ne nag leneen rax na ca lu bokkut ak yàlla doonte bakkanu boppam la wala bànneexu boppam it ak ñàkk sell dal na cay dugg bu nu delluwaatee ci téere sëriñ bi mel ne masaalikul jinaan ak fu mel ne majmaxu nooree ni sëñ bi indiwoon woon na fa wax yaari kilifa yi nga xam ne dañoo wute lool ci nuñ gisee ngistal alxaraafi ak alxazaali ni alxaraafi waxee nag moo gën a dëppanteeg nit ci kese yi te mooy rek balaa loolaa nekk ngistal daal la mu def doon ak jaamu yàlla waaye lu ajuwul ci jaamu yàlla moom ngistal mënu ca am te ni alxaraafi waxe bu defoon xeetu jaamu yàlla jublu ca am bànneex bu dagan ci àdduna mel ne mu taqoo guddi gu ne mu jàng saaru waaqia ndax bëgg a bari wërsëg doonte wërsëg wa yéene ca jëme ko ci yoonu yàlla yit da ko bëgg a jubale ci faj bànneexu kanam fii ci àdduna it alxaraafi day wax loolu ngistal nekku ca borom Gazaali moom day wax ne kuy def guddi gu ne nga jàng saaru waaqia ndax li ñu ne day tax bari wërsëg la koy tee nekk ngistal mooy nga yéenee am lu lew ba jëmale ko ci yoonu yàlla waaye boo bëggee am lu lew ngir sa bakkan ak àdduna rek ba tey ngistal la moo tax ni alxaraafi di waxee muy gën a neex a dégg ci nit yi kese yi ñoom ku ci bëgg am lu yaatu mën naa delluwaat ci masaalikul jinaan ca fam ca toll ak ci majmaun nuuréy nii xaqiqatul kasi bi dëgg-dëggi fen ixbaaruka moo di sag xibaar maa loo xam ne lam yëkku nekkut saabitan di aji sax bi xawlil xulamaa ci waxi way xam ña waxoo moom nag xabiixun aji bon la mu jibun te aji waral la isa jalaa ndem feeñ na màgg ga fii maa ca la nga xam ne nuqi la toxaleef na ko idi ngir laa yamiinu du fen ak sax su jëmm ja illaa xarajat ndari mu génn kitbatufoo fenam wa min fii hi bàyyi ci gimiñam su ma saada topp muy yéeg fa tabuluxu te muy jot alxarsha aras allazi ma nga xam ne ala makaanin mooy gën jaa kawey barab su ma taqoolu topp dana wax ne anaaman kisbatu fulaanin maay fenu diw la anahoo na ko rëbb allahu yàlla fayal xanu te koy rëbb almaliku buur bi subhaanahu sorelal naa ko lépp leelul ci moom min sàmm ca foofee ma kulli malakin ànd ak mépp malaaka wa takk tubate dana bind al amlaaku malaaka ya xaddal xay ni limub juróom-ñaar fukk xat yi atan ci ay ñaawteef alayhi war ko duuna may nin ci lu dul fenn yi atin bépp ñaawteef bi qadril jabali nekk na ci kam doj wa fii uhudin ci uhud xakaahu nett li na ko cheikhu na kay kilifa dafa agsi ci fen mu ne fen moom yow mën naa xamle saay waxee lu bokkut ak la am ay ko rek fen wu ara mooy wax la am dëgg-dëgg kon saay waxee lu bokkut ak la am ko loola mooy fen mu ne moo lool te matam ndax ku ko def yàlla da koy rëbbu malaaka yëpp rëbbu ko ndax bu fenee ne fen mooy bàyyi ko ci gimiñug moom mi fen dëgga ne saa boroom diw moom a teg ca ne diw moomu nag yàlla nga ko rëbbu yow saa boroom fi saa sa yàlla daal di rëbb kookee dàq ko ci yërmandeem mboole malaaka yàlla itam ya nekk foofee marché ci rëbbu waajoojee fen te du tee fen woowee ñu bindal ko ca juróom-ñaar fukki bakkaar juróom-ñaar fukki ñaawteef yoo xam ne wu ca ne day toll ne doju Uhud bu ñu ne doju Uhud montagne lay doon nekkul aw doj wooyu yëkkati dañuy wax montagne yooyu xam ne li muy ci ton yàlla rek ko xam wenn ñaawteef wu ci nekk day toll ne diisaayu doju Uhud buñ ko doon peese wa tax mu ne fen noonu la bone noonu la mata lakin lakinnahu waaye moom nag sama qasamahoo séddali na ko baadu zawil ahkaami lenn ci waroom àtte yi li xamsatil aqsaami jëme ko juróomi xaaj fa qaala te mu wax jaamiha mbir mu muy aji boole la waññeel ko fii xadadi sittati abiyaatin ci limub juróom benn bayit bi nazmin ci aw way jaridin wu di aji rafet ne xassamoo séddale nañu algaziba fen li ak aqsaami jëm ci juróomi xaaj fa minhu bokk na ci fen man doobun lu sopp wa bokk na ci fen maa fen woo xam ne yajibu dana war man doobuhoo la lañu soppam lil xar bi ñeel na xare wal irhaabi ak ragalloo maanaam tiital li kaafirin ñeel ab yéefar yux daaw boobu def na ko wor maanaam def na ko nax bil bi ca fen wa waajibuhoo aj waram ja li fakki maalil muslimi ñeel na xob bi alali julit mbaa lijjanti alali julit wa maali nafsihi ak alali boppam xaqiqan ci dëgg-dëgg fi ci deret mu baaxuhoo lu ñu daganalam yaa saax yoo sama àndaale li islaahi ñeel na defar ga bay na waraa diggante mbindeef yi maa fii déet muy nekk ci moom min junaahin benn bakkaar makruhuhu lu ñu sibam li saw jëtin ñeel na soxna tatyiban ngir teeyal li nafsiha ñeel ba kanam wali ibnihi ak ñeel doomam tahbiban ngir ak soppaloo xaraamuhu aji araamam moom fen huwa moom ëllës yi mooy fen wa nga xam ne xaddoxo li ma xameef na ko li xayri ma manfaatin muy ñeel lu dul njariñ sharxiyatan bi ko jug yoon wa wax na qawmun aw nit ne kulluhoo lépp fen xabiixun aju bon la wax wate moom as saxiixu mooy aju wér fii madhabinaa ci sunu ngir maanaam ci sunu yoon gannaaw ba mu waxee fen ni mu bone dane nag am na ñenn ci ñi xam àttey lislaam yi ñuy def fen juróomi xaaj mu mel ne atte yi ngay tudd yëpp ci mbiri lislaam dana di am ci fen kon dana am fen wu ñu sopp am wu ñu sib am wu war am wu araam am wu dagan te àtte yoon yi mënta génn loolu am na ko wax loolu ba noppi nag leeral lam wax ci juróom benn bayit yoo xam ne moo tàmbalee ci li mu ne li xamsati aqsaami kooko dane woon fen wa ñu sopp mooy yéefar bi bëgg xareek jullit nga wax ko lu amut ci nu jullit ñi amee ay ngànnaay mbaa nu ñu baree ak nu ñu takkoo ba tax koo na sax tax koo tiit ñu ne woowu fen lu ñu sopp la ku ko def da nga ci am tuyaaba ndax def nga lu ñu sopp mu ne fen wa war nag mënta ñàkk mooy yow ci sa bopp la naree rey mbaa ñu nara nangu sa alal mbaa sa mbokkum jullit ñu nar ko rey mbaa ñu nara nangu alalam te mën ngaa wax lu amut ba mucc sa alal mucc mbaa ba sa mbokkum jullit mooyu mucc alalam mucc kon loole la muy nekk nekk fen war nga koo wax mënta ñàkk ndax xeetali bakkan ak xettali alali jullit lu war la mu ne fen wa nga xam ne dagan na doo ci am bakkaar mooy bu buggee defare ab diggante ñaar wala mbooloo moo xam ne am na dox seen diggante nga bëgg ñu defaroo ba tax nga wax ci lu amut loolee nga ca wax fen la waaye dagan na doo ca am benn bakkaar ñu ne nag fen wa ñu sipp nga xam ne bañ gaa def moo gën boo ko defee doo ca am bakkaar waaye soo ko moytoo xam ni gënut ñu bindal la tuyaaba ca moytu ga mooy jëkkër ji bëgg lu neex soxnaam ak lu ko gën a jubaleeg moom ba wax ko lu amut wala soxna si ci boppam di wax boroom këram lu ko neex loo xam ne dara du ca dëgg waaye bëgg rekk lu defar seen diggante ak lu baaxal seen diggante moo tax wala nit ki di wax doomam loo xam ne bëgg mu dégg ndigalam ak bëgg ñu mëne rek moo tax waaye ci dëgg-dëgg amut loolu lépp wax lu amut la waaye nee nañu ci sib rekk la ku ko defit dees ca bindal bàkkaar boo ko moytu woon xam ne gënul nag ñu bindal la ca tuyaaba dañuy wax ne nag ñaar ñuy sëy kenn kay wax moroom ci lu neex loo xam ne amut buñ nee du ci am bàkkaar itam moytu gaa gën a wóor ndax su ko dee wax mu dox dox ba gis lu wuteeg lam doon wax loolu mën na andi ab yàqu-yàqu seen diggante boo xam ne du neex a defar mu ne nag fen wi nga xam ne moo araam mooy fen woo xam ne boo ko dee seet bokkut ak kenn ci yi nga weesu nga xam ne nga xam ne kooka wax na rek lu amut te amul benn njariñ ci yoon bu yoon di jàpp ne war naa tax mu sañ a wax loolee léeg sax mu nekk fen wu araam lool wu ñu tëkkoo sawara ngir la addis ba ne maniqtatan maala muslimin bi yaminin kaadiba adxalahu llahu naar faqila lahu walaw shay'an qalila fa qaala walaw qadiban min araak addis ba dane ku ba jël alali mbokkum jullitam te lam waat dara du ca dëgg nga xam ne faaw yàlla dugal ko sawara ñu ne ko ak lu alal ja tuuti tuuti mu ne doonte sax bantub socc la mel ne bantub bokk ci garabu gaw la it du tee yàlla dugal ko ca sawara am na ñu ne fen moom yëpp a yam amu ca wenn wu baax yépp lañ war a moytu mu ne nun nag loolu moo wér ci sunu yoon loolu la nu jàpp dañu wax ne daanaka nit lu nar a waxe lu amut mën naa làq-làqal ba aajoom faju wàccul yoon lam wax am na te lam bëggoon sotti daañu ko misaale waa ju baax joo xam ne dafa am ku mu làqoon fat ko ñu di ko gëstu baax si ci moom di ko ko laaj mu rëdd aw rëdd jël baaraamam teg ca digg rëdd wane nekkul fii de nga xam ne fa mu teg baaraamam la bëgg a wax ne waaja nekku fa te ñoom ña ko doon gëstu di ko laaj jotuñoo seetlu loola xamuñu moom la mu jublu te gis nga la mu wax moom noonu la ame ndax fa mu teg baaraamam moom waaja nekkul foofa te teewul fat na ko làq ko ba mu mucc moo tax li ñu wax naa inna fil maharidi la man buuxatan xanil kazib xeeti gaaral yu mel noonu daal mënees na ci sukkandiku bay sori wax lu amut am man namimatu daal rambaaj la daa mën fa ka nga xam ne baaxa sa gëstu na fa naqlu ko mooy sa toxal alxadiisa waxtaan wa xàmman jële ca ka nga xam ne xaddasa waxtaan na ko bi jihatil ifsaadi ci wàllu yàq wax ya moom nag aqbahu moo gën a bon min riibatin ci jëw wax ya moom nag aqbahu moo gën a bon ci jëw kama siyooxu nit nga xam ne sëriñ sa sarraxoo wéral nañu ko li kaw ni xaa ngiru nekkam tu bu di sabab alxadaawata noonoo wal buxda akuk bañeel bay naas ci diggante nit ñi wa shaqawat akuk texee wax ya moom nag la dal yi fa sëriñ sa summun tooke la taqtulu sos day rey tiryaaquha ak luggam mbaa nga ne ak moccam al i'raadu mooy dëddu an xaa walis ko faaqiloo na ngeen xellu dafa jàll ci rambaaj rambaaj daa bokk ci yi araam mukallaf mu ne war koy moytu mu ne dëgg-dëgg yi rambaaj mooy nekk wax ngir bëgg a yàq soo jëlee wax ji ci kii net li kee mbaañee ngir bëgg yàq seen diggante loolu kon rambaaj la lépp loo xam ne buñ ko siiwalee mu yàq diggante nit ñi rek kenn waru koo siiwal mu ne moom nag moo gën a bon jëw ndax ndax jëw ka ñu jëw bu ko déggut moom ma jëw rek moo cay gaañu waaye mën naa bañ a am leneen luy yàq diggante nit ñi rambaaj nag moom day yàq diggante nit ñi ba ñu nekkoon ay bokk soppiku di ay noon tax mu ne moom rambaaj day indi ak noonoo ak bañante ci diggante nit ñi ba nit ñi dund dund gu naqaree naqari mu ne nag sëriñ si nee nañu mënees na ko misaale luy matt te amee tooke joo xam day yéeg ñu war koo lugg su boobaa nag la koy lugg di ko wàcce mooy bañ a faale boo xasee xam ne kii daal ab nettalikat la ab rambaajkat la bul déglu ay waxam lu mën di waxit bul ko déglu loolu daal moo gën a gaaw ci faj rambaaj googee moo tax am ku waxoon ne man kii rambaaj jaaxaluma ndax ndegam moom du sos dañuy wax rek mu dem nettali mën na maa téye sama làmmiñ ba du dégg ci man lu muy nettali kay sos kay di fen moo may jaaxal ndax kooka mënuma ci dara lii xiilatun fii man yelum walaysa fil kadaabi xiila man kaana yaxluqu maa yaquulu fa xiilatii fiihi qalila wal xujubu aaw wal xiibatu ak jëw wal buxdu akuk bañ alxasadu ak kañaan aydan ba tey wa sumhatun ak ndéggtal naxaa tere na anxaa walis yooyu as samadu yàlla ki ñu jublu ci ajo daa boole ci way juróom yoo xam ne lu ci nekk mu kàllaf da ko war di moytu gannaaw bi nag la koy teqale kenn ku ne mu wax ne mooy nangam dafa mel ne nag ndéggtal mee ak kañaan moom jotu leen wax ku ci nekk mooy lan déggatal mooy def lu baax di ko nettali ngir ñu naw ko ca mbaa ñu tagg ko ca mbaa bu ko nettali wutoon xëy na daañu ko xas ci wet la taxan ñu ngistal daal mooy jëf ngir bëgg alal mbaa bëgg daraja mbaa bëgg aw tagg ba tey su jëfee ba noppi nag nett ko te loola rek tax loolu moo tudd ndéggtal moom it day yàq jëf ni nga xam ni moom la ko ngistal di yàqe kañaan nag mooy yàlla defal kenn ci mbokki jullit ñi xéewal mu bañ ko koy yéene bu ca boolee di wax mbaa muy def luy lor kooka mu daal nekk kañaan gu araama araam ni alxuraan di waxe naa wa min sharri xaasidin ida xasad bu fekkee nag xolom yéeniwul kee xéewal ga waaye nag lu ko naqari la bu sañoon yéene ko ko te ci mënul dara rek bu ca boolee nag kon waxiwu ko jëfiwu ko kenn du ko ca bindal benn bakkaar te naqari ga ko loolee naqari ci xolom sax daañu ko ca bindal tuyaaba waaye nag la gën a baax ci ab julit mooy lu mbokkum jullitam am rek ci xéewal mu yéene ko ko ba yéene ko lu ko ëpp xaqiqatul xujj bi dëgg-dëggi aaw de dammil xayin ci damm xayin nga wa bi sukkoonil jiimi ak ci sukkoon jiim nga duuna may ni ci lul fen mooy jeng ilaa nafsin jëm ci sa bopp maxas te enzamin ànd ak réel laxaa ñeel sa bopp li nisiyaanika ngir sag fàtte dal anaan borom bindee fii dawaa uxoo saafaraam xilmu ko mooy sa xam ne ànnal xamala naka jëf ja li maalikil anaami ñeel na aji moom mbindee fi màgg na waxalaate mu kawe wa annahoo ak naka moom maasil te dañoo daa taqsiirin di boroomu gàttañ lu fii ci moom walam taji te dikkewoo bikkan naqiiri ci lu toll ni naqiir fii jam bi maa ci wàllu la nga xam ne xalay ko war na la min xaqil jalili ci àqi aji màgg ja walam taji te dikkewoo bi dara ci lu toll ni sang leeñ wala fatilin du caageenu fatil wa anna man ak naka ka nga xam ne itamada sukkandiku na xalaa si wallaahi ci kudul yàlla taxal laa mu rekkiku an hu walis ko wa tawaate mu al ko yow man naka di ci bisub tiis wa wa annahu ak naka moom yuum ki nu dana jàppandi an laa laa yokk bala bu deefu ko nangu li kasaratin xilali ngir barik ay ràgg maanaam ay rëq-rëq fii ca moom faaqilan na nga xellu wa rubbama ibadatin baraan ak jaamu kathiratin guy aji bari xadd afsadat haa yàq na ko lahzatun ab gendiku xaqiirat xaqiiratun bu di aji xeebu laa yem yi du yell lil xab di ñeel jaam ba daawaa azamati qorobihi woote màgguk ay jaamoom woote rëyuk ay jaamoom li rabbihi ñeel boroomam din ni amati kay boroom xéewal ga dafa jàll nag ci li ñuy wax alxujj bu aaw walla fi koy wax aaw waaye mooy naw sa bopp am daal loo naw ci sa bopp moo xam jëf la moo xam xam-xam la moo xam jikko la mu ne alxujj bu baat bi boo ko dee maas xayin gi da koy maas maas koog lonk jiim gi nga maas ko maas koog nekk baa bi nag moom dafa saxul ci nenn ci béréb mën na faa nekk bu ci beneen ba ci beneen bi mu ne nag aaw googu mooy rek naw sa bopp réyal sa bopp moo xam sa jëf moo tax nga naw sa bopp wala sa xam-xam mbaa sa jikko lu mu ci mën doon rek cycle su réy réy te fàtte yàlla sa boroom mi def loolu ci yow moo koy waral ndax bu la wóoroon ne li ngay naw ci sa bopp kat yàllaa ko def ci yow waaye defoo ko ci sa bopp loolu boo ko xamoon te jàpp ko doonoo sa bopp da ngay sant rek mu ne nag la koy faj mooy mu wóor la ne bu dee jëfa nga di ko nawit ca dëgg-dëgg yàllaa ko jëf jaarale ci yow rek nde yow defoo ko ndax xel ma ak kàttan nga ak jublu ga lépp boo ko dee seet yàllaa la ko may rek dimbalee la ko nga jëf ko mu feeñe ci yow rek loole nag kon boo ko jàppee noona doonal sa bopp mu ne it boo ca boolee xam ne li ñuy wax gàttañ lu am na ca boo demee gàttañ lu mooy doomi aadama xam ne nii la gën a baaxe mënoon naa defe noona mu topp nag bakkanam ak bëggum nooflaay ba bañ a defe noona daanaka doomi aadama néew na mucc ci loolu lu mu def ba àggal rek boo ko dee seet xam na ndam gënoon a baax mënoon nu mu gën a baaxe te fàttiwu ko te du tee bëgg am nooflaay dana tax du ko defe noona daanaka daal doomi aadama jiy jëf di la muy jëf lépp lépp lépp la mën na ko ci def du desal dara dara dara dara dara lu jafe-jafe la mu ne nag boo xamee ci sa bopp gàttañ lu googu xam ne nii la gëne woon fàttiwoo ko te mën nga ko te defoo ko loolu doy na sikk jëf ju xas gàttañ lu rek waratoo ko nawati mu ne it nga dolli ca ne loolee nga def ba di ko naw dara ci li nga war a defal sa boroom sa boroom li nga ko ameel ci àq mooy ni nga ko war a liggéeyale boo dee seet li nga ci def ba di ko naw da cay tuuti lool daanaka du ca tol ne aw sang leeñ da ci toll ne li ngay tuddee fatiin muy wëñus ndaw su nga xam ne mooy nekk ci kembu tàndarma nga déggoon ko ci te tasawudu sixaar day na rek ne li ngay naw ci loo defal sa boroom du dara ci la la waroon sa digganteeg moom boo doon seet li nga def ba di ko naw ak la la waroon sa digganteeg moom day mel ne benn toq ni mu ci géej mu ne nga dolli ca xam ne ku sukkandikoo jëfam kat mbaa dara am yàlla wan ko gannaaw di ko seetaan bàyyi ko jëfam ba xam nu muy def ak jëfam bu ca nee cell moom yàlla bàyyi ko jëfam rek nu muy def mu ne kon xam nga ne day alku rek te mu ne it ndegam jëf ji xamagoo ba xam yàlla nangu na koom déet mëtaguta naw ndax jëf moom lum rëy rëy bu ko yàlla nanguwut coono ba ca borom sonn rek la ca am kon daa sonn ba noppi te jëriñuwut ndegam xamagul nag ba xam yàlla nangu na koom déet mataguta naw ndax doomi aadama dafa matadi lool ba li cëpp bu dee jëf ak matadeem day feeñ ca jëf ja yàllaay nangu jëf ji rek ci mbaaxam ak ngëneelam waaye bu doon seet te bala ma koo nangu day mat sëkk-sëkk kon dana néew lu muy nangu ci jëfi ay jaamam te mu ne nag bari na xeeti jaamu yàlla yu bari yoo xam ne jaam bi dana koy def mu rëy lool bari tuyaa ba lool waaye su ko geesoo geesub naweel lu geesu ba tuuti tuuti rek yàlla wàcc lépp ak moom bañ caa nangu dara dara bu ko defee loolu lépp yàqu daanu du ci jariñu fii du ci jariñu fële mu ne ci gàttal ab jaam daal lépp lu mu def digganteem ak boroomam da ko war xeeb tey ñaan ak liwaayu boroomam mu nangul ko te dolli ko kàttanal ba la mu def mu mën lu ko ëpp xaqiiqatul xiibati dëgg-dëgg yi jëw duuna rey bi ci dul benn sikki sàkka zikru ka mooy tudd xaala sax mbirum jëmm ja baax ba'dal xëy bi ci gannaaw fàddu ga aw xaalama wala mbirum loo xam ne taallaqa ajuna bisi ci moom bi maa ci loo xam ne yakrahu dina ko sib law sami'ahu doonte déggoon na ko la mën na nga xam ama isa zakartaxoo ndaal ndeem tudd nga ko bi kullimaa ci lépp loo xam ne lam yekku nekkut xaalahoo di mbiram fa buxtaanun kon aw dóor la samaawow yëkkatiku na wa mën a oo nañu daalika loole aydan ba tey fil xadari ca teew ga li àndahoo ngir naka moom ak saru moo gën a bari xayban ci ayub wa bararan ak ci lor indi lësiyu naka ka nga xam ne xaala wax na bi xëyri zaa ji lu dul lii waxi ma juum na waxarrafoo te war na ko mafhoomuhoo la mu dégg wama fahima te déggul dëgg-dëgg mu ne nag jëw mu kàllaf bu ne war na koy moytu lool lool dana wax ci kanam tuuti ay sikkam waaye nag mu njëkk a wax lan mooy jëw mu ne jëw moom daa yomb lool ndax loo wax ci nit mbaa lu aju ci nit moo xam ab toolam la moo xam këram la moo xam mbindam la moo xam ab téereem la moo xam ci dara ci la muy liggéeyam yu métier la moom daal loo wax ci nit mbaa lu aju ci moom loo xam ne am na sax waaye bu ko déggoon du ko neex nekk di ko dégg waaye bu ko déggoon du ko neex loolu kon jëw la lu mu tuut tuuti rek jëw la moo tax jëw moom daa yomb lool jafe mucc ci gàttal lépp lu wax ci nit mbaa lu aju ci nit te fekk itam loola am na na ko waxee noonu la amee ba mu koy wax nag kooka nekku fi woon te bu ko déggoon du ko neex loolu jëw la nde mu ne sax bu fekkee la mu wax ca kooka farul am sax day boole kon jëw koog duural ko kon lay gën a diis ndax day boole jëw ak fen bu ñu ne jëw moom mooy kooka nekku fi nga wax ci moom loo xam ne bu fi nekkoon du ko neex mu ne itam kat du tax nag bu fi nekkee lu la neex wax ko rek teg ko ci daram ndax ni mi ngi fi loolu sax nee na boo ko dee seet moo gën a aay nit ki teew ngay wax sikkam te bu dee boroom jom tëb jëflante yow bu ngeen jëflante lu ne mën na ca am moo tax mu nekkoon di ko wax sikkam muy teew moo gën a aay mu ëpp sikk mu ëpp lor ndax jëw moom bu fekkee ne kañ jëw déggu ko moom mi jëw rek moo cay gàddu bakkaar bu dis boobee mën na am mu yem foofa waaye ndegam waa ji teew na muy wax sikkam loola mën nañ caa jaare jëflante ci jëflante goo xam ne lu ne ci xeeti ay yi ak alaxira mën na caa am mu ne nag ku wax loolu ne jëw daal mooy kooka nekku fi rek nga wax ci gannaawam loo xam ne bu ko déggoon du ko neex loolu rek kay jëw waaye bu xasee teew moom loo ko wax rek baax na nekkatul jëw mu ne ku jàpp loolu day dafa dégg déggin wu ñaaw ñaaw xamewut nam doon dëgg-dëgg bu xamoon na doon dëgg-dëgg dana wax lii nu wax te mooy kooka teew ngay wax sikkam moo gën a aay moo mën a gën a indi xeeti ay yeeg lor yi fii ak fële xas ko war na laa doy fiihaa ci jëw anna fil quraani naka nekk na ci alquran tashbihaha ak nirooleem bi maytatil insaani ci néewub doomi aadama mu ne boo delloo ci alquran ba mu ko aayee ne wala yaxtab baadukum baadan da caa teg ne a yuhibbu ahadukum an yakula lahma axihi mayitan ndax kenn ci yéen bëgg na mbokkam faatu mu tiim ko di lekk aw yàppam bam ne bu kenn ci yéen di jëw moroomam dane mi ngi mel ne moroomam moomee di mbokkam faatu mu tiim ko di ko lekk noonu la jëw ko ñaawe mu ne loolu nag doy na sëkk ci nga xam jëw bon gu mu bon waqaala waxoon na xayrul ambiyaay ngën ji yonante yi takaruran ci ak baamu li nuxbati nisaa yi ñeel tànneefu jigéen ña ne ko xii ii luujul te jéem a wàccu xii ii wàccul maanaam luujul rek te jéem a wàccu lamma ba mu waxee li ma ati ñeel jigéen atat xaa joj dikkal na ko ni haadi jile jigéen tawilun aji gudd la daylu xaa mbit ci mbalaanam mi fa xaa at te mu wàccu fa saqatat terot mudxatu laxmin dogu yàpp fa xalafate mu giñ moom yonante bi salla yal na dolli tedd nga allahu yàlla maaxaasa li feeg làq na sharafan tedd nga bi ànd xaa ci naka dog woowu law xadamat doonte reesoon na laa budda mënta ñàkk min du xooli xaa ci ak duggam annaara sawara idal mawtu ndem faatu ga yaa nu dana gaar bi dana feeñ wala tufiidu xaa te du ko jariñ la dal jël yi dafa aj màgg ja nisbatu xaa askanoom nga tàmm foofee ila rasul jëm ci yonante ba mu waxaat la leneen lu lay xamal ne jëw lu bona bon la mu ne soxna Aïcha yal na ko yàlla doolee gërëm daa ma sa wax ni jigéen ji day mbicc yi mbalaanam yi dafa gudd yonante bi ne ko jëw nga ko wax nga ko lu ñaawa ñaaw te nag xaaxtandikul luuju te jéem a yàbbi waxam da nga yàbbi daraam déet naka soxna Aïcha daldi xaxtaniku looju daldi yàbbi aw lumbu deret yonent bi ne ko jëw bi nga ko jëw mooy lii nga yàbbi bu fekkoon ne nag reesoon na ci yow maanaam bu fekkoon ne yàbbi ko woon faw boo faatoo danga dem sawara mu guddoo mu gàtt faaw nga dem sawara te ni nga demee man du la tee dem sawara mu ne loolu boo ko déggee danga xam ne kon jëw lu mat moytu la wa xiibatul muslimi jawub julit fii qawlil xabiir ci wax aji dañ ja kumpa aqbaxu moo gën a bon min ak li ko ci sa lekk jiifatal xamiiri meddu mbaam wa qisatul marjoomi te xisab waa jañu jam wal isnayni ak ñaar ña xas bu ko war na laa doy zaajiran ci aji jàjj bi xëyri may nin ci lul fen mabda'uha tàmbalikaayu xissa ba mooy anna rasulallahi naka yonante bi yàlla ba alayhi yàlla na doole nekk ci moom aska salawaatillahi gën jaa seel li tereel yàlla xadd kaana nekkoon na zaahiban di aji dem wa jaa te dikkal ko rajulun waay fa qaala mu ne ko xadd xalaktu alkuna yaa xayra rusuli yow ngeen ji yonante yi xaala wax la hooñal ko ne ko li ma ngir lan fa xaala mu ne ko inni naka man zaneetu njaaloo naa muxsa nan mbir mu may ku ñu senge wul senge wul bi xam din ànd ko tey min nii gu tukkee ci man xaala mu wax la ñel ko ne ko udd wool sa nit ñi yar jumoo ka ñu jam la summa daxaa humoo topp mu woo leen fa xattaloohu te ñu rey ko id ya ummu ba gën a jublu wa ba'da za gannaaw lii tabi axoo topp na yonante bi saxsaani ñaari jëmm yaxataa baani ñooñ danañu jëw li rajuli ñeel waaja almarjoomi jadi juñ jam xataa ataw ba ñu dikkal jiifata xayrin meddum mbaam fa waqafa mu taxaw moom yonante bi waxaal te mu wax ne yaa daani yéen ñi la ñaar kulaa lekk leen zi mi la meddum mbaam waxaala fa te mu waat ne inni naka man man na it anni naka man ara maa ngi gis waa joojee ya muy diri fil jinaani ci àjjana tiyaabahoo ay malaanam faf tabaxa te gecci mbaate torox te rus a shaxsaani ñaari jëmm yooyee mu ne jëw sa mbokkum julit tiim mbaam mu medd di ko lekk moo ko tane maanaam tiim yàpp mbaam mu medd di ko lekk moo tane jëw sa mbokkum julit te mu ne la cay tegtal mooy xisa bi ngay bëgg a dégg mu amoon ci jamono yi yonante bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nuy waa ji njaaloo woon ñu def ko li lislaam wax di ko sànni ay doj ba mu faatu gannaaw ba nag ñaar di ko jëw xisa boobu nee na boo ko déggee dama gën a xam ni jëw baaxut fi xisa bi tàmbalee nag nee na moo yonante bi ci boppam da doon dem nii benn waay dab ko ne ko man day alku mu ne ko lu tax nga ne alku nga mu ne ko damaa njaaloo te fekk ma séngewu séngewu mooy bu dee góoroo bu dee jigéen jot naa sëy sëy bu wér ci lislaam ba jotee ka muy sëyal jote bu wér wér loolu mooy sëngewu ku sëngewu nag noonu ba noppi njaaloo ci lislaam dañ koy àtte àtteb rey te rey ga day metti ndax dañuy woo mbooloo ñu di ko sànni ay xeer ba mu muy faatu yonente bi ne ko nag kon demal waroo nit ñi ñu def la li yàlla santaane ci yow bu daldi woo nit ñi nit ñi sànni ko ay doj noonee ba mu faatu gannaaw ba nag yonante bi di dem ñaar topp ci moom di jëw nag waa jooju nga xam ne moo njaaloo ba ñu rey ko noonu yonante bi dem di dem nag ba àgg ci mbindum mbaam mu taxaw fa daldi wax yaari gaa yooyu ne leen lekk leen ci mbindum mbaam mi ndax jëw bi ngeen doon jëw seen mbokk moom ñu rey ci njaaloo gi lekk ci meddum mbaam mii moo ko tane teg ca waat ne kooku dee tuub na tuub gu sell goo xam ne yàlla gërëm na ko ba maa ngi koy gis ca àjjana mu sol ay mbalaanam yu gudd di ko diri muy buubu naka mu wax loolu ñaar ñooñu daal di torox lool te rus wal buxdu mbañeel nag xinda haulaay nuxuju fa yi lay tànneef buxduka moo di sag bañ musliman ab julit bi xayri sababin ci dul benn sabab yu wajibu ko dana waral buxdaxoo ak bañam bi sharxil Mustafa ci yoonu ka ñu tànn salla yàlla na dolli tedd nga alayhi ci moom allahu yàlla tumma sharafa topp mu teral ko mu ne bañeel gi nga xam ne moom lañuy ñuy aaye mooy jekki-jekki rek bañ sa mbokkum julit daray yàlla taxut bu dee xotti gum xotti ormay lislaam nekk ci lu yàlla gërëmut moo tax nga bañ ko loolu yàllaa tax waaye waaye daal bu ko bañ mukk lu may rek ngir yàlla daa waxoon ci gannaaw ne koy bëgg bëgg ko ngir yàlla koy bañ bañ ko ngir yàlla wa ru'yatul fadli ak gisu ngëneel alul xayri ci keneen alsina ak njaaloo suxriyatun ak reetaane waxabasun ak fo bi sa bon alxanaa ñaawteefu wa dafa jàll ci wax yeneen yoo xam ne bu kàllaf da ko war moytu bu baax a baax bu njëkk a tudd mooy gis ne moo gën kenn ci li yàlla sàkk wala wi wax njaaloo njaaloo moom mooy joteeg koo xam ne buumuk sëy doxul seen diggante ndax léegi mel na ne wàllu njaam jeex na wut ab taara mbaa yooyu amatut mbaa néew na kon kum joteel jote góor a jigéen goo xam ne fekkul buumu sëy dox seen diggante rek njaaloo la ak li ñuy wax reetaan kenn walla fo yooyu yëpp nee na daamata moytu dana ko teqale benn benn wa kullu man képp koo xam ne yanzuru dana xool fawqahu kaweem ga alkilaaba xaj ya falkal bu xaj xayrum moo gën minhu ci moom duunal irtiyaa bi ci ludul benn sikki sàkka li ànd asla kulli naas ngir naka cosaanal képp nit aadamu mooy aadam wax wate moom min tey nit turaa bi mi ngi bàyyi ko ci banub suuf sa faalamu na ngeen xam falasta déet yow afdala ngay gën ax yow sama mbokk min ahadin ci kenn li jaxlima ngir réere la nga xam ne tasiru da nga mujj fii ci moom fii xadin ci ëllëg mu ne bul gis mukk ne gën nga kenn ci mbindeefi yàlla yi ndax ab xaj sax ku ko gis defe ne yaa ko gën booba xaj baa la gën te mu ne doomi aadama yépp ñoo bokk cosaan mooy aadama aadama la yàlla sàkke ci suuf tan ko ëf ci agro génne ci moom soxnaam xawaa ñoom ñaar ñooñu nag ci la doomi aadama yépp soqi ko nga xam ne kon ñoo bokk ndey ak bàyyi ñoom ñëpp la ñuy gënante gannaaw ba mooy rafet gëm ak ak topp te ku yàlla may mu rafet li gëm ak topp it mën naa sant tey séentu ndolleen tey ñaan mujj gu rafet rek waaye ak mu ci nekk am solo te kenn xamut ak mu jëm xam ne kenn ku ne daal li fekk muy faatu ba ñaari tànkam taxaw ci biir àjjana jërëgul naagu dara mu ne nag kon umpale nga umpale sag mujj war naa tax doo jàpp mukk ne gën nga kenn mbaa tane nga kenn ndax ni ko addis ba waxe ab jaam mën naa nekk ci lu baax ba tuuti dese ko fekk yàlla boole woon ko ci waa sawara mu daldi mujj def lu ko yóbbu sawara ab jaam mën naa nekk ca safaan ba ba àgg rek ci tuuti dese ko fekk yàlla bindoon ko ci waa àjjana mu daal def lu baax bokk ca waa àjjana nga xam ne ak mujj rek am solo te kenn ku ne ak mujjam yàlla rëddoon na ko te lam rëddoon dara du ca ko ku xamul ak mujjam kon wërta defe ne gën na kenn mbaa tane na kenn izhaaru ta'zimin feeñaluk màggal bi xasdi zammi ànd ak jublu aw xas sammaahu tuddi na ko ahlul ilmi ñooñ xam-xam suxriyatan reetaane bokk na ci ab moytu reetaan mbokkum julitam ndax suñ borom ne laa yasxar xawmum min qawmin xasa an yakunu xayran minhum wala nisaa'um min nisaa'in xasa an yakunna xayran minhun aw góor bu ñu reetaan aw góor ne ñoom jigéen ñi bu reetaan seen moroomi jigéen ndax xëy na góor mën nay reetaan góor goo xam ne moo ko gën moom mi reetaan jigéen it nay reetaan jigéen joo xam ne moo ko gën moom moomu di ko reetaan xeeti reetaan nag yépp mata moyu waaye nag rawante na di feeñalal nit ak fonkee la ko màggal goo xam ne jubluwu ca ak fonkee la ko màggal ŋàññ ak reetaan la ca jublu mel ne koy wan ne ko sa daraja tolluwul nii de sax jox nit daraja ju ëpp jëkku nit ñay jox ndax defe ne yelloo na ko dara nekku ca waaye nag feeñalal ko ak màggal goo xam ne jublu ca lu may ŋañ wan ko ne ko tolloo nii loolu reetaan la ba addis ba ne bi xas bimri im min acharri an yaxqira axaahul muslim kullul muslimi xalal muslim xaraam damuhu waa irduhu wa maaluhu jullit daal xeeb mbokkum jullitam day na ko sëkk sikk day na ko sëkk aw ay day na ko sëkk ak mbon maanaam xeeb mbokkum jullit daal doy na sëkk aw ay doy na sëkk ak mbon xaqiqatul xabasi dëgg-dëggi kullu laa ibin mooy mépp po xadd mën moom tere na min fu ci moom sharixatu nabi yoonu yonante ba wa minhu bokk na ci fo jaayisun aji dagan wa minhu bokk na ci fo ma po moo xam ne nusiba askaneef na ko ilaa jëm ak sipp bokk na ci fo maa po xam ne nudiba soppeef na ko jaayisuhu aji daganam almasxu moo di kaf ma as sadiqi xarit bil xaq ci dëgg laa xayru du caa génn lu du dëgg xalaat taxqiiqi ca dëggal ga makruuhu lu ñu sibam moom fo iksaaruhu moo di ak barilam iksaaram ak baril li annahu ngir naka moom yow bàyyeexu dana sànq al amaara dund ya man doobuhu lu ñu soppam